Rafah de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay fii ci gaar bu mag nemmeeku nañ fi soble ak pomme de terre su ne gàññi nekk ci ay saako yu ñu tegale ci place yu bari way jaaykat yi di xamle ne soble si bari na fii te mi ngi way di ñëw. du fi xaaj nii nga fi ñëwee nii l'an 2000 tabaski boo fi ñëwaatee après tabaski nii lay mel. li tax loolu xaalis amul soxla yi bare na fu ñu jëm. waaw tolluwaayu soble ci jamono ji de moom wax dëgg yàlla métteegul ndax soble ak pompiteer moom xanaa pompiteer bi daal moo yokk mais soble moom pour le moment yokkul ndax instant yi soble dafa bëri ci àll bi fi mu ne soble bi gën a cher nga xam moo gën a nekk qualité dijji ñu ngi koy jaayee 200 ci bascule wala saako 25 kilos ñu ngi koy jaayee 5000 kon day di que kilo 200. te ci temps Korité bi ñu ngi jaay 225 kon dèjà soble moom yokkul que pommiteer a baax par rapport ak daaw daal soble bi mën na ko tey yéeg ba tey mi ngi si mi ngi jël 200 bascule mais daaw heure bi ñu ngi koy jaay 400 kon ren am na wuute waaw daal la gën a jàppandi daal waaw. waaw tolluwaay soble bi jamono ji de moom am na moom soble moom am na euh, xanaa. lii calli rek lim commencé di am ay problème yu yàqoog yooyu loolu rek la waaw waaw moo commencé am ay benn benn yu tooy daay gis nga ko moo nekk ne gis nga fi ñu koy ber ak pomme terre bi tam nim mel loolu daal mooy catli waa waaw am na moom am na gis-gis yu wute ci wàllum njënd mi góor gi di leen ne gisul benn client am way naataangoom bi ne moom ñi ngi ñëw ndànk-ndànk ñëwuñu fenn ndax client bi naroon war a ñëw fii borom saret dina takk fara saret fekk ca bundu këram jox ko li ma ko doon jaayee xam nga boobu liggéey ba mu fu liggéey baw fenn bu ma la naree jaay 200 fii nit ñëw jënd fii fanweer de juróom dem fekk fa jaay ko 200 kooku moom dootul ñëw kon fu ñuy jaar. waaw client yi moom ñu ngi ñëw ndànk-ndànk ñu ngi ñëw ndànk-ndànk ñu ngi ñëw ndànk-ndànk ndax euh, niñ doon ñëwee daal moo wàññeeku xam naa jamono ji la fi mu nekk rek moo jamono jee metti si ñoom waa waaye ñu ngi ñëw moom. bu ñu sukkandikoo ci kàddu jaaykat yi lii lee di soble du manqué ci tabaski gi. non ren moom tabaski soble du manqué moom am nañ si yaakaar bu baax a baax damaa xamul nag lii ñaari fa ñett bi mais en tout cas li ñu gisagu nii ba li gis marché occasion bi moom soble yaakaaru mu manqué moom. non manqué moom ah astafurla foogu ma ko bokk foogu ma ko am naa yaqin yaqin ne daal moom dana doy moom dana doy. naam soble si bari na te yomb waaye nawet bi tax na am ay yàqu-yàqu ci nemmeeku. soble moom am na euh, xanaa li calli rek lim commencé di am ay problème yu yàqu ak yooyu waaw yàqu-yàqu moom soble moom moo bindoo noonu bu sekee su bu xasee commencé dal ndox moom soble moom fokk mu am ay benn benn yoo mënu cee ñàkk. bilee liggéey di njaayum soble ku ci aj soxla boo moytuwulee di faju loole di kàddu jaaykat bi. mais li ma ci gis ren moom ku ci yaakaar a yoru kër doo dem. li tax doo dem mooy li ci àll bi mooy li ne fii dañ lay jaay fanweer nga yenu andi nga jaayoo ñoom ñene ci tool ñi yëpp topp ci bu ñëwee jaay fukk juróom luñ dagg juróomi dërëm waaw fanweer lañ ma jaayee ma ñëw toog di jéem a jaay deux ans fanweer ak juróom ñu yëpp topp fekk ma fii di jaay fanweer. soble si bari na ci marché bi waaye ca tool yañ koy bay la lambaajo ca baykat yi gisuñu ku ko jënd ci yile jamono. Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer